fukki fan la amul lenn lu ci nekk dëgg te ab la boo xam ne Macky Sall moo ko lal te ndaw si nga xam ne mooy Adji Sarr bu mu génn réew mi te ay mbokkam nañu def attention bala koo gaayee rey maanaam bala ñu ko liquider nee na Macky Sall moo nekk ci ginnaaw sortie bi nga xam ne Adji Sarr def na ko fan yi nga xam ne moo la ñu génn ci RFI ci Jeune Afrique ak ci Le Monde moom Ousmane Sonko ci lu jëm ci wàllum contrôle judiciaire bi nee na ma ngi ak passeport diplomatique am te dana génn réew mi waaye nag moom nee na ay tukki sax da ko yitteelu la daan wax tamit ne contrôle judiciaire nga xam ne da dem di signé nee ne dara yéen kaay gi di Vox Populi ñu fekk ko fa moom Ousmane Sonko ci lu jëm ci wàllum ñàkk a gi nga xam ne ñàkk na ko signé nee na institution yi maanaam justice bii nga xam ne respecté wu ma kon man mënuma respecté li nga xam ne mooy justice bi ci jëm ci wàllum mbiri Adji Sarr nag loolee ab complot boo xam ne Antoine Diome ministre de l'intérieur moo nekk sa ginnaaw ak jabaram ak nag Bassirou Gueye mi fi nekkoon procureur ak Mamour Diallo ak général Moussa mi jiite gendarmerie ñoo nekk ca bopp complot ba yéen gi du Source A moom Ousmane Sonko daat nay wax ne d'accordul benn yoon ci li nga xam ne mooy borom ñaari tur yi te nee na nag bu nekkoon njiitu réewum Sénégal dina criminaliser li nga xam ne mooy borom ñaari tur yi moom Ousmane Sonko wax na ci nga xam ne moo am ca diwaanu Casamance nee na tamit bu nekkoon njiitu réewum Sénégal dina ko lijjante wax jëm ci wàllum njàngam ak njàngale nga xam ne ñoo nekk ci wàllum wér gi yaram gi jafe nga xam ne moom la ñuy daj te loolee état bu Sénégal waroon na ko lijjanti yéen kaay gi du Sud Quotidien ñu xëy fekk fa waa M2D ñoom nag ni ki démb ñoo ngi doon fàttaliku fukk ak ñeent ñi nga xam ne ñoo faatu woon ci événement mars yi ay dëmbooj nee na Macky Sall li nga xam ne moom la ko xalif général des mourides santoon amul lenn lenn loo xamante ne Macky Sall daan na ko si jëfee te loola nag lu ñaaw la moom Aïda Mbodj daan nay wax ne Macky Sall n'a pas respecté ses engagements yéen a kaay gi de Le Quotidien ak L'As ñu koy fekk fa waa mouvement pour la défense de la démocratie nee nañu nag ñi nga xam ne ñoo faatu amul benn enquête boo xam ne ubbi nañ ko ci te état bi waroon naa ñi nga xam ne ñoo si faatule ñi nga xam ne ñoo si am ay gaañu-gaañu état bi waroon naa def ay yitte di fàcce léegi ni amul lenn loo xam ne Macky Sall daan na ko ci def moo tax waa mouvement pour la défense de la démocratie yéen a kaay gi de la sax nee nañu xeex bi maanaam dinañu ko yóbbu ca cour pénal international ñoom Cheikh Tidiane Dieye yéen a kaay gi de l'observateur nee bi nga xam ne moom la ñu détourné woon ci port bu Ndakaaru te mu toll ci trois milliards yu fegg neuf cent millions ki nga xam ne moom moom engrais boobee di ab doomu réewum Turquie daan nay wax ne Nasinya mi ne moo jiite entreprise bi nga xam ne mooy transcontinental transit moom ak ay partenaire am ñoo falsifié mooy document yi maanaam nga xam ne mooy engrais a Walfadjri xam ne moo ko waral bokk na ci temps baaxul bi nga xam ne moom la nekk ak bateau étranger yi nga xam ne ñoo dugg ci ci biir géej gi napp jën yëpp ak nag ñoom pêcheurs yi amuñu ay jumtukaay yoo xam ne mën nañoo dugg ci géej gi jamono ji ñeenti jën yu ndaw a ndaw cinq mille francs lañ la koy jaayee yéenekaay gi nee na am na yenn jën yoo xam ne ba léegi kenn gisatu leen yéenekaay gi di Walf Fadjri nee na commerçant yi ba léegi dañoo lànk kandaare bañ a wàññi nga xam ne mooy njëg yi yéenekaay gi di Rewmi Quotidien xëy séq di Mao Sidibé Mao Sidibé mi nga xam ne producteur la artiste la réalisateur la dafay réaliser ay vidéo mi quotidien moo séq ak moom waxtaan wu yaato yaato wax nañ ci parcours musical nee na 1994 la ci dugg wax na tamit te Oscar de vacances fa la wax na ci style musical am wax na ci projet yi nga xam ne moom la dëgmal ndax am na projet reportage ay vidéo ak ay clip yoo xam ne war na ko def yéen kaay gi di sunu lamb nee na combat Balla Gaye numéro 2 ak Bombardier jàpp nañ ko juróom-ñaari fan ci weeru août. Société nationale d'électricité bu Sénégal Sénélec moo leen doon may seen revue de